wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi diin mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi del siwaat ci sunu majlisul xasaid yu ñu baaxoo di ko ànd ak yéen bis bu ne ci waxtu jot ci heure bii mbokki xaside gi ngeen di teg seen baaraam tey moom la ñuy wax xasiid ak matlabul fawsayni mooy làkku tuuba maanaam su fekkoon ne tuuba dañ koo aar ba kenn mënut koo yàq nit manees na caa yàqoo waaye kenn mënatul koo yàq waaye man nga fa yàqoo waaye kenn mënut koo yàq dang naan mooy jëmmi xasidi gi mooy làkku tuuba maanaam su fekkoon ne dang naan ab néeg la ab betamaa la ñi defar lépp kuuli ko ba noppi seng ko wala ñi dër ko defar defar lépp ba noppi tëj bunt ya jël caabi ji tikk mooy jëmmi xasidi gi moom lañ tëjee Tuubaa ba kenn mënut koo lor Matlabul ni nag li muy tekki mooy sàkku texe adduna ak alaxira loolu nag suñ ko waxee day walaabal ba ci lépp lu kër lépp lu nit bëgg ci adduna la ca njëkk mooy am kër am ay soxna ak i njaboot xasidi gi loolu lay njëkk a def terale nit ki fii ci àdduna waaye du ko bàyyi ba yowmal xiyaam mu am ci ay kër ci aljana yu dul jeex soo déggee mooy mat faw matlabul ni mooy kiy sàkku texeeg ñaari kër yi maanaam jàppal ci jëmmi xasida ak matlabul fawsayni su ko defee li muy njëkk def ci yow mooy samp kër ak njaboot ak i soxna waaye du la bàyyi ba yowmal xiyaam ca kër ya ca aljana ak jongoma ya ca wóorul ay nii fa tabarakallah loolu mooy ki bëgg texe adduna ak alaxira kon xasida ak Matlabul Fawzayni mu ngi noonu xasida la goo xam ne Sëñ Tuubaa mooy waxal boppam fi mu ko bindee bis ba ko bindee ban weer ko bind lépp moo koy waxal boppam ci biit kon loolu mën nañ koo bàyyi ak moom ko tegee suñ duggee ci biit xasida gi dana leer waaye xasida la goo xam ne sëñ baa ko tëgg ci baxaru rajas muy baxru bi gën a siiw man nga ne te xalil ibnu ahmad yi di tegale baxru yi muy juróom-ñaareeli baxru su ko defee muy bi nga xam ne nag moom lay gën di wéyee doonte baxru rajas am na ci boo xam ne lu mel ni lam def jasbul xulóob ak ni mu def mawaaxi bu bokkuñ te même baxru rajas la su ko defee nag bii ni mu tëggee bii nga xam ne mooy matlabul fawsini mooy li gën a siw ci yi muy tëgg yi muy taalifee moom la def bisiri moom la def taysir moom la def jaalibatu mafatul bisiru nuuru daareeni waaye nag bokkut ak nam def mawaahibu bokkut ak nam def jasbul xulóob ndax nam def jasbul xulóob day dindi ñeenti loon bàyyi fa ñaare mawaahibu moom day dindi juróom yëpp bàyyi fa benn kon nag baxru rajas noonu la mel baxru rajas nag bayit bu ci ne maanaam day bokk daaneel nga xam ne bayit yëpp yëpp yëpp maanaam duñ bokk nañu daane waaye nag dont nag léeg-léeg dana ci am waaye nag li ëpp ci sëriñ bi ni muy taalife mooy bu jëlee baax rajas mooy par bayit ñooy bokk daaneel lu mel ni alhamdulillahi alkarimi silminan ala istiqaali bi furodin wa sunan gis nga bàyyi na nga xam ne nuun loolu la ñuy wax lu soo maanaam nuun lay daano nuun lay daano bayit bu njëkk bi mu jëlaat ne sakkartuhu li annahu xat saaqanii gis nga soppi na waaw xat saaqanii nga xam ne kon yaa lay daanoo noonu la koy defee itam waqaadane ilayhi بالتهالي من بعد ما حسب بالتقلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمحلوم gis nga ba léegi bayit bu ci nekk daaneel bokk lay nekk su ko defee kon xasida gi moo nekk nii Sëñ bindee ko ci dëkkam bu tedd boobu nga xam ne mooy Tuuba al Mahruusa ci kër Sëriñ Saalihu radiyallahu anhu foofu la ko euh, fa tabaarakallaahu sëriñ bi bindee su ko defee kon ñi tàmbali xasida gi di ñaan suñu borom tabaaraka taala ñu yeggale ko ak jàmm xasida gaa ngi tàmbali fii bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama tasliman xasida gi nag ay abiyaatam yépp soo koy xool deux cent trente la mu tolloog limu kun faykoon xarafu kun faykoon kon xasida gi jëmmi kun faykoon la bokkut ak xasaayid yi nga xam ne almuqaydal quraan la am na ci xasaayid yoo xam ne sëñ bi day xool aw turu yàlla rek mu tollook moom loolu li demee ni xasida ak madul foo seeni maanaam noonu la ko def am na yoo xam ne alquran la am na yoo xam ne baatab alquran ak la koy tëkkee lu demee ne jawartu kon xaside yi bëri na loolu waaye xaside gi nag dafa xool li ma kun faykoon rek maanaam muy deux cent trente six fa tabaarakallah mu tolloog moom waaye xasida la goo xam xasida kenn tànn bu xar baax la xasida goo xam ne maanaam gu xar baax la dafa bokk ci muux ci saatu maanaam sëriñ bi radi laal te booy xool li ma ci gën a yëm mooy set set yi nekk ci biir xasida gi xaraf yi ko sëñ bi xaraf yi nga xam ne moom la ko sëñ bi côté muy kun fay kon bay xool ay xarafam juróom-ñaar la ay xarafam boo jëlee keef gi nun gi faa gi yaa gi kaaf gi waaw gi nun a raki juróom-ñaari la waaye li gën sëñ Touba diir bi mu diir bu mu taalifee xasida gi sañ ci te mooy 1307 ci gàddaay yonent bi ci ati Touba 1888 soo koy xool diir ba mu sañ ak diir ba muy ba ko yàlla teg nattu mi ci géej gi juróom at la waaye itam li mu am ci géej gi juróom-ñaari at la ak juróom weer waaye da ngay gis ne ba ci sax weer wi mu ko taalif muy weer rajab mooy juróom-ñaareelu weer maanaam ci at mi weeru muharram safar rabiul awal rabiul saani jumaadal ula jumaada saaniya weer rajab gis nga waaye itam ci benn semaine ci la ko bind benn semaine ci la ko bind loolu itam doon doon doon te semaine ku nekk xam ne ne juróom-ñaari bis la loolu kon doon yeneen xar baax waaye asamaan ak suuf yëpp mën nga ne kon juróom-ñaar la xool xasida gii xar gi ci nekk nga xam na tey soo doon lim par juróom-ñaar par juróom-ñaar li gën a yéeme xoolal fu ne jumaa fu ne juróom-ñaari sorol la xoolal fu ne matlul fawsé loolu maanaam sëñ bi xasida gi dafa xar baax xasida gu yéeme la sëriñ bi ne bismillahi maa ngi tàmbali sama xasida gi ci turu yàlla arrahmaani buur bay xéewalaa kon bépp mbindéef ci àdduna arrahimi buur bay ajiram ku ko soob ci alaxira wasalla yàlla na dolli xéewal wasalla yàlla na julli allahu yàlla taala moom mi aji kawe ala sayidina ci kaw kii nga xam ne mooy sunu sang bi muhammadin turo mooy muhammad wasalamata mu dolliku wulu tasliman ak dolliku wulu sëriñ bi ne maa ngi tàmbali xasidi ci turu yàlla ndax turu yàlla dafa barke lool ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne kullu amrin si baalin lam yubdu bi bismillahi rahmani rahim fa huwa abtar am bu ne fa huwa aqton am bu huwa ajsam waaye lu ci mantukaam rek mooy ay naaqisul lépp looy tàmbali su fekkee tàmbali ko bismillah rahmaani rahim maanaam barke du ci am barki du ci am mukk te barke nag wax naa leen du ak jëmm waaye jëmm ju nekk rek dañ koy daal di xam place bu mu nekk rek dañ koy daal di xam waaye nag nekkul ak jëmm moom barki waaye fu mu nekk ci xam ko kon yàlla nu yàlla defal barke waaye yàlla mi nga xam ne mooy kii xewlaa kon bépp mbindi caat na ñu ko weddi ña ko gëm ña koy moy ñëpp moo leen di bokk rahmaan la tudd ci ñam ñoom ñëpp mooy ki leen di bokk di xewle fii ci na moo tax rahmaan ci ëpp na rek la xaj day jeex bu yàlla coupé jant bi leem suufam rek mooy rahmaan jeex na lam doon liggéey lépp jeex na waaye nag fi ñëpp lay bokk di xéwalee booy xool sax xéewaluk suñu borom ñi koy weddi sax la ko gën a xapp ci ñi nga xam ne dañ koo gëm ndax da leen di teg ak nattu ba xam ndax danañ muñ muy jullit ñi kon tëggoog fanxlaan la mooy loo xam ne day jeex takk waaye nag arrahim mooy buur ba nga xam ne mooy aji yëram ku ko soob ci àlaxira ñi nga xam ne da leen santoon ba noppi ñi tegee ci yoonu siraatal mustaqim te sañuñ koo bañ ba noppi yàlla di leen teg ay nattu ci biir topp guñ topp yàlla ñi di ko muñ sax ca dàkk moo xam sabru xalaa sabru xan sabru fii yépp daje ci ñoom ñoom ñu ci yomal xeame ñooy yaakaar yërmande suñu borom ndax ku jaamuur yàlla moom yaakaaroo yërmande ndax yërmande yàlla ku koy yaakaar mooy kay jaamu yàlla di xelaat di namm sa xel di namm sa xol ngir di xelaat borom bi di yaakaar yërmande bi suñu borom tàbbal la ca kon bii tëgg faxlaan bii tëggal faxal la mu ngi mel ni léeg-léeg ñu ne nit ki mer na léeg-léeg ñu nit ki kontaan na farxaan sakkaraan xandabaan xam nga loolu nikki ki ci dëkk léeg-léeg mu mer léeg-léeg mu kontaan léeg-léeg mu sawar loolu loolu xaal boobu rek maanaam xaal yu ci lay ci lay dund ci dëkk léeg-léeg mu mer léeg-léeg mu kontaan léeg-léeg mu sawar loolu loolu xaal boobu rek maanaam xaal yu ci lay ci lay dund waaye ba tey mu daal di julli yonent bi ni mu ko baaxee du ko defee ngir lan alquran ko digle yàlla moo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu man yàlla man ak samay malaayka ñoo ngi sax dàkk di julli ci bi kon nag yéen ñi gëm da leen julli ci yonent bi tey sëlmal loolu moom it moo tax saa yu tàmbali bismillah maa bi da ngay gis ne day sàkku ci yàlla na ko yow yàlla maa ngi lay ñaan nga julli ci kaw kii nga xam ne mooy sunu sang bi mboolem bindeef yépp mooy seen sang lu yàlla sàkk lépp xaalamiin yépp mooy seen sang turam mooy Muhammad waaye nag na nga ko dolli wóolu fa tabaarakallaahu ak dolli wóolu sëñ Tuubaa de maqsadul qasidati duhaau wa sukuru aljalibati insha allahu taala li saydi wan nasri wa hiya maqulatun fi maskani qailiha tuuba arasaha allahu taala sëriñ tuuba nag ñëw wax xasidi gi fan la jëm xasidi gi sant lam wala ñaan lam wala istixfaar lal déedéet sëñ tuuba mooy ñëw waxal la boppam bi nag xasidi gi lii laa ci jublu sëñ tuuba nee na maqsadul xasida jubluwaayu xasidi gi maanaam suñ lay wax jubluwaay bi nga xam ne doo ci boole leneen leneen fu ne nekkut ci lii rek la lii rek moo nekk ci biir xasidi gi jubluwaayu xasidi gi maqsadul xasida jubluwaayu xasida gi ñu ne ko ah mu ne adduha u mooy ñaan wa sukuru ak cant aljaalibati ñaan goo xam ne ak cant goo xam ne aljaalibati aji bijji la insha andem soob na allahu yàlla taala moom mi aji kawe aji bijji la li say di ñeel ak dolli wa nasri ak ndimbal gis nga mu ne ñaar képp la te ñaar yi man nga dem moo tax yàlla wacci nit ñi ci kaw suuf ñaan huwal xibaada adduha wal xibaada yonent bi nee ñaan mooy caabi jaamu yàlla adduha u mukkal xibaada ñaan mooy yuquk jaamu yàlla dem na sax ba ne ku xëy ba ngoon ñaanoo yàlla yàlla mer la man lam yasalillah yaqdab alayhi ku dul ñaan suñu borom suñu borom dalay mare dalay mere moo tax suñu borom ne udduhooni astajib lakum na ngeen ma ñaan ma may leen suñ saal yu daan na wax ne sàllaahu de buur bi yem ni yàlla ne dee leen ma ñaan ma di leen may ku koy ñaan waroo koo ñaan lu tuuti dee ñaan lu bëri waaye da ngay gis ku julli julli nga gis ko mu toog tikku kurus ga ñaanu dara dara dara dara maanaam lu tuuti tey boo ko laajoon looy ñaan moom lay ñaan ah te yàlla xaaju nag lu ne nit mën na koo ñaan te yow loolu waaye da ngay gis ko xam saa yu ba noppi la muy ñaan rek mooy yàlla naa fi yàgg te moo ne nekkut ci lu baax yàlla na ci yàlla musal kon nag ñaan lu am am solo yàllaa ko digle farata ba noppi ñi war di ko def tax alquran ko digle kon su ko defee ñaan dafa am lu muy def ci jeexit nit ki waaye nit ki suy ñaan rek wan na ne moom amul dara am na borom boo xam ne saa yu ko tàll rek mu ñaan kon loolu tawhid gënu ko màgg waaye nag cant ñaan gi ci lay ñaanee su fekkee dafa bëgg yàlla xettali ko wala nangam yàlla dimbali ko waaye nag su ko defee cant gi may cant ci la ko yàlla di dollee ngir sama borom dafa wax ne la in sakartum la asidanakum gëj naa ne su ngeen ma cantee ma dolli leen waaye nag su ngeen ma cantut du ma leen dollil kon nag wala su ngeen ma danaa leen weddi kon da nga ciy ku sant yàlla du ko dollil waaye kuy sant yàlla dollil ko habdi lam yaskur isa lam yaskur man ajrayta nixmati ala yadi am beneen riwaaya ci hadisul qudsi yi mu ne benn yadi sama jaam du ma sant mukk fekk ma jaarale xéewal ga santu kookee du ma yëg ne man yàlla sant ma yonente bi ne attahadusu bi nixmatillahi sukrun wa tarkuha kufrun wa man laa yaskuru alxalil laa yaskuru alkasir wa man laa yaskuru naas laa yaskuru laa yonente bi nettali xéewaluk sa borom loolu at cant la waaye bàyyi koo nettali ak wedd la te ku sant nit ki wala ku dul ku ku dul sant nit ñi du sant yàlla te ku dul sant lu néew du sant lu bëri kon nag loolu yëpp bokk diggante sant buñ ci toogoon rek di ko waxtaanee lim ñëw ci alquran ak ay hadis yonent bi danañ ci yàgg waaye Sëñ Tuubaa ne aji bijj la ndem soob na suñu borom nga xam ne moom mooy ki kawe gi ndax soo soo ko ñaanee rek mu dimbali la waaye soo ko cantee rek mu daldi lay dolli mu ne waxiya moom xasida gi nag maqulatun lu ñu waxee la fii maskani qaa'iliha ci biir dëkkuwaayu aji waxam tuuba te muy tuuba guy tekki texe moom tuuba moom xarasaha yàlla na ko yàlla doollee garde xaagug dëmmir la guy dellu ci dëkk ba dellu ci sëriñ bi déedéet moom tuuba xarasaha yàlla na ko doole garde moom tuuba kan faaxel ji mooy allahu yàlla taala moom mi aji kawe yàlla na ko doollee garde min kulli makruhin ci lépp lu ñuy sib wa maqufin ak lépp lu ñuy ragal bi jaahi man ci darajaay ka nga xam ne haajara dem na gàdday na alqaa'ilu aji wax ji mu jubli ci moom sëriñ bi ilayha jëm ci dëkk ba di taalif xasida gi dara taxut li ihya i ngir dund rek sunnati yi sunnaam sa salla yàlla na dolli xewal allah moom yàlla taala muy aji koy ali ci kaw moom yonente bopp wasalamata mu dolli kóolu sëñ Tuubaa nee na xasida gi ñi ngi ko waxee ci biir dëkkuwaay ki ko wax kon sëñ Tuubaa da ngay gis ne Tuubaa rek lay tuddee dëkk dane kon Sëñ Tuubaa moom dafa wax ne wallaahu lii maskani yufqi ca muqaddamatul amdaad yàlla daf may saxal ci sama dëkk bi ma di fi des yàlla daf may saxal ci sama biir dëkk bi ma di fi des kon Sëñ Tuubaa moom Tuubaa du fi jog mukk ndax lu mu am ci àdduna ci kaw suuf lépp Tuubaa maanaam moom la gënoon bëgg ci kaw suuf moo tax sax bi muy dem ci tukki bi dafa bokkoon ci natt bi dañ na ko dootoo gisati tubaa dooto dem dootoo demati Tuubaa te loolu ñu bëri si ñuy waxtaanee lenn la xew ci yoon dañ koy fàtte dañ koy fàtte loolu lu ma tabaay xale Sëñ Tuubaa lu mu gënoon bëgg mooy te dafa bokkoon ci nattu mooy du delluwaat Touba te Touba la gën a bëgg bokk yi mu ne nag xasida gi lu ñuy waxee la ci biir dëkkuwaay ka wax maanaam moom moom dëkk bi ba noppi waxee ko fa <laughs> maanaam fu ne sëñ bi moom moom jëmmi dëkki Touba Touba yàlla ko ko jox ba noppi nag mu waxee ko ci biir dëkk ba ah sañ na ko sañ na ko nee na nag xasida gi lu ñuy waxee la ci biir dëkkuwaay ka ko wax te mooy Touba Touba nag sa jaratu fi jana maanaam yonente bi nee na garab la gu nekk ca biir aljana maanaam suñu borom moo ko fi jëmbat. ba noppi nee na daa di ne wal ca ruuxum da ca da caa wal ruuxum nee na bànqaas bu ci nag nag fa tabaarakallaahu aljana joo mën a dem maanaam bànqaas sa garab yi Tuubaa goog dem na ba liis ca aljana yooyu nga xam ne kon man nga ne aljana yëpp la di keral bañ neex mooy bànqaasu garaba Tuubaa bànqaasu garaba Tuubaa yàlla moo ko jëmbat ci loxoom ba noppi wal ci ruuxum muy garaba Tuubaa nga xam ne kon loolu yéeme la mun nag yàlla na ko yàlla doolee garde ci lépp luy pexe lépp luñ sib ak lépp loo xam ne ak ragal la kon nag loolu responsabilité mi ngi njëkk tàmbalee ci ñi dëkki Touba waruñ fay defee lenn loo xam ne kenn ku bëgg a ñëw Touba dana ragal ngir la fa nekk am na dëkk yoo xam ne la tax nit ñi dañ fa dem mooy ragal ak lu sib la fa nekk moo tax ku bëgg a jóg dem fa doo fa mën a dem loolu nag booy xool tey loolu responsabilité bi mooy ñi dëkki bi Touba nañ fexe ba bu kenn ragal a dem Touba ku ragal a dem Touba ñi ne lan ñi ne bon bon ya fa nekk ak yuy yées yi fa nekk fu ne am na ñoo xam ne bañ dundee ba léegi mos ñu dem Dakar la waral mooy dañoo xam ne suñ fa demee danañ fa gis lu leen neexut wala lu neexut yàlla loolu yépp moo tax ma nañ fa dem kon lu ñu sib la ak loo xam ne dañ ko fay ragal ngir lan mën na leen di tàbbal safar ëllëg kon nag loolu responsabilité bu rëy ci képp koo xam ne dëkk na Tuubaa bu fa def loo xam ne dana ragal loo ñu fa dëkkut wala dana ragal loo ñu fa dëkk wala loo xam ne lu ñu sib la lu ñu tere lu sariya bëgg la loo xam ne munkar la lu ñuy fëkk lépp day dugg ci biit maxna bi moo tax ne yàlla na ko yàlla doolee garde ci lépp loo xam ne lu ñu sib la ak lépp loo xam ne ragal la ci daraja yonente ba nga xam ne moom sa moom jëmmi sëñ bi moom mii dee wax xasida gi maanaam dafa gàddaay ñëw ci dëkk bi ngir dundal sunu si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Tuuba li ma ci laa biira mbokk yi mooy lenn képp la su ko defee ngeen xam ne ñaanuk sëriñ bi yàlla nangu na ko yàlla aral na ko Tuuba ba lépp lu ñu sib wala lépp lu ñu ragal yàlla aaral na ko waaye li may laabiré mu lu mbiram bàttina du ma ci dugg waaye pas-pas rek lay waxee mooy képp kuy mooy yàlla tuubaa jàpp ne kenn sut la sëñ Tuubaa moo la fay jëleel boppam parce que ñaanam gi yàlla nangu na ko su ko defee nag lépp lu fa waaye def bañ bañ yëg ko ñu xam ne diw ko def na nangam Tuubaa la ko defee warul ko faa def ndax moo ko fi doo ko def loolu sëñ Muntaxa moo jël responsabilité la ca sarixa laaj mu àtte ko su fekkee mbiram baati na nga xam ne nii dafa mooy yàlla waaye baj na kenn xam ko sëñ Tuubaa mu xam na ko ca saasa ngay faatu fu ne ku la dàqa mooy yàlla maa leen ko wax de ku fi dàqa mooy yàlla ci Sénégal suñ ko yóbboon Tuubaa mu am fa kër koo ne mooy yàlla am nga mooy yàlla di nëbbuti kenn gisul ko suñ mun taxaa yëgul ko kenn yëgul ko day toog rek ñu ne dee na lan moo ko dee mooy yàlla ka kon dëkk ba sunu borom ñagal na ko sëñ Tuubaa maanaam kenn mënu koo yàq waaye na mën nga fa yàq wa yàq gi mooy lan soo fa nekkee mbiram baatin di mooy yàlla jàpp ne kenn gisul la da ngay dee ca saasa waaw loolu mooy man nga faa yàqoo mooy mam da ngay doon ku gàtt fan moo tax ku la dàqa mooy yàlla SWLM suñ ko yóbbu woon Touba mu dëkkee fa mooy yàlla te kenn gisul ko ci saahir day toog rek ñu ne dee na moo tax Touba luñ fay suul si néew kenn xamul lu mu toll. la ko waral mooy Touba xarasa allahu taala min kulli makruhin wa maqoofin yàlla defal na ko de yàlla aaral na ko dëkk ba kon nag nit a fa mën a yàqu waaye kenn mëntu yàq dëkk ba kenn mëntu yàq dëkk ba lépp lu fa waaye def ci luñ sib lu sariya at tere loo xam ne mosuñuy gis kenn ku ko def ci dëkk ba sëñ Muntaxa mooy taxaw atte la ci atteb sariya te buñ ko defoon ci beneen dëkk bu du Tuubaa nag waaw da ngay dem kenn du la atte ba bi seen yaay gis ci dëkk yi liñ fee def kenn xamulum toll te sariya am bëggut ko lépp lu xaraam la daganut lu xaraam la ba jéggi dayo te kenn du ko atte ci waaye Touba nag loo fa def su ko sëñ Muntaxa yëgee dañ koy at sariya nag loo fa def su ko sëñ Muntaxa yëgee dañ koy ko nag ci saayir waaye sëñ bi moom yëg na ko na la wóor na soo continuer di mooy te tuuboo ci dëkk ba di Touba dañ la fay jëlee sëñ Touba moom waaw suñu borom aral na ko ca sansa ngay faatu loolu ñaan gu nangu la de loolu moom mbiram baat na du ci dugg waaye loolu lu yéeme la bokk yi lu yéeme la mat taa bàyyi xel de kuy mooy yàlla SVNet nañ yóbbu Touba ay fan mu dëkk fi mooy yàlla te kenn gisul ko ñu ne ñàkk bakkanam yàlla nañ ci yàlla musal léegi nag mu ngi ñëw nag làkku tuubaa li nga xam ne moom la làkkee Touba su fekkoon ne da nga ab kër la ku miire këram ba noppi tabax ko seng ko jël caabi yi tëj ko nga xam ne kenn du ci mën a dugg mu ngi mel ne Touba ni nga xamee ne sëñ bi noonu la ko làkkee léegi nag moom lay indi ci ay ay xadis yonent bi salaay salaam yoo xam ne daan na digal saxaaba yi ñi di ko ñaan muy ñaan yu am am solo su ko defee moom lay indi nag fa tabaarakallaahu mu ne aousu billahi min asaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mu ne aousu danaa muslu billahi ci kattanug yàlla mina saytaani ci saytaane arajim kada kuñ dàqe moo li sir mande yàlla bismillahi ci turu yàlla lay tàmbali sama xaside gi arrahmaani buur bay xéewlaa kon bépp mi ci àdduna arrahimi buur bay ajiram ku soob ci àllaaxira mu ne maa ngi muslu nag ci kattanu yàlla ci saytaane mi nga xam ne yàlla da koo dàq mu wëlis mboolem yërmandem fépp fu yërmande yàlla rek sunu borom fa dàq moom jëmi saytaane nga xam ne du jege mukk mande yàlla fu mu toll ci dang-dangi ak i coona ak i njàqare rek ci lay dëkk moom it ñaan la gu amam solo jëlee nañ ci ku ñuy wax manxal ibnu yasaar mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moo wax ne man qaraa hiina salaasa maratin axuusu billahi sami al alim min saytaani rajim wa qarra a salaasa maratin min surati al asri wukkila allahu bihi sab'ina alfa malakin yusalluuna alayhi xataa yumsi fa inna maata fi saalika al yawmi maata shahidan wa man qaalaha iina yumsa kasaalika nee na képp koo xam ne xëy na jàng axuusu billahi min saytaani rajim képp koo xam ne xëy na jàng ko ko ak koo mën a doon ñetti yoon rek nga jàng ko ko nee su euh, kooku ba ngoon gi lépp luy xeetu lore mucc na ca kenn du ko mën a lor te seytaane du man ci moom dara dara dara te nee na du ci em de yàlla ci boppam mooy wëkkil ci moom juróom-ñaar fukki junne malaaka ñuy julli ci moom ba ngoon te nee na su deexee ci bis boobu mel na ni ku sayit na ko su ngoon gi ñëw itam nga jàngaat ko ba suba teel ba fajar nee na itam noonu rek yàlla day wëkkil ci yow juróom-ñaar fukki junne malaaka fa tabarak laa ñuy julli ci yow te boo dee ci fajar gi itam ba tey da ngaa sayit da ngaa mel ni ko sayit kon loolu bokk yi kenn xamut maanaam yoon bi nu mu toll moo tax mu ne maa ngi muslu ci kàttanu yàlla ci seytaan mi nga xam ne dañ koo dàq moolis yërmande yàlla dal ne maa ngi tàmbalee ci sama xasida gi ci turu yàlla yàlla mi nga xam ne mooy kii xewlaa kon bépp mi ndéef ci àdduna tey ajëram ko mu ne awansu bi kalimatillahi taamaati min sari ma xallaqa salaasan mu ne awansu dinaa muslu bi kalimatillahi ci baati yàlla yi at taamaati yëdaway mat danaa ci muslu min ma ci ay lépp loo xam ne xalaqa bind na ko moom yàlla salaasan ñetti yoon su ko defee nag dafa indi tëralin maanaam képp koo xam ne da ngay jàng xasidi gi lii nga defe naa ne seen xasidi yi da ngeen ko ci gis maanaam axonsu bi kalimaatillahi taamaati min sari maa da nga koy wax ñetti yoon soo jàng xasidi gi soo jàngee xasidi gi ñetti yoon nga koy wax moom it hadis la boo xam ne yonent bi daan na ko dénk ci sahaaba yoo xam ne yu bari waaye danañ ci jël rek yonent bi sallallahu ku ñëw xawlatu bintul Hakim dafa nettali jëlee ci yonent sallallahu na yonent bi dafa wax ne isa nasala ahadukum mansilan falyaqul a'uusu bi kalimaatillahi taamaati min sari ma xallaqa fa innahu laa yaduru sayun xataa yartaxila minhu xawlatu dafa wax ne yonent bi nee na képp koo xam ne day wàcc fenn moo xam nga dem Kaolack wala tuuba wala dëkk ba noppi nga jàng a'uuzu bi kalimaati laahi taamaati min sharri maa xalaq nga jàng ko ñetti yoon nee ne dara du la fa lor ba kere ngay laxu su di bàyyi ko ci dëkk boobu wàccuwaay boo mën a dem rek réew moo mën a dem soo ko fa jàngee ñetti yoon ba kere ngay laxasu dara du la mën a lor ci wàccuwaay boobu ci dëkk boobu nga xam ne kon loolu kon njëriñ li kenn mëntu xam nu mu toll tabaaraka la boo demee ci imaam muslim sax indi na ko moom njëriñam kenn mënu ko wax booy génn sa kër yonent bi nee na nga di ko jàng dafa baax nga nekk sa place di ko jàng dafa baax ngay tukki di ko jàng dafa baax moom dafa làmboo lépp gépp xeeti muslaay man nga ne mi ngi ci moom waaw nga xam ne ku ko jàng si xëy gi ba ngoon ba ba ngay ñëw sa kër gi booy génn sa kër di ko jàng ba ba ngay ñëwaat sa kër dara du la mën a lor ngir lan ci barke wax ji wax rek moo tax kon da nga koy jàng ñetti yoon mooy aonsu maa ngi muslu bi kalimaati laahi ci baati yàlla yi ak taamaati yedeway mat mooy ci turu yàlla yi rek di ci jublu maanaam mu ngi muslu ci kattanu yàlla ci turam yu sell yi min zarima ci ay lépp loo xam ne xalaqa bind na ko moom yàlla maanaam lépp lu yàlla bind rek nee na nee na ko maa ngi muslu yow yàlla ci sa baat yi nga xam ne way mat lañ mankuñ dara sa melo yi nga xam ne way mat lañ mankuñ dara maa ngi muslu ci sa baat yow yàlla yi nga xam ne way mat lañ ci ay lépp loo lépp loo xam ne bind nga ko mu ne wala hawla wala quwata illa billahi alil asim moom it soo jàng xasida gi da koy jàng ñetti yoon te muy tekki mooy wala hawla déetut pexe wala quwata déetul kattan ila billahi ndere muy nekk ci yàlla alali moom mii aji kawe ji alasi mii aji màgg ci maanaam daal képp ku tegee ci yoonu siraatal mustaqim jub kocc ba noppi bàyyi lépp lu la yàlla tere nee na loolu daal képp koo xam ne nekk na ci moom rek mooy na la wóor na ci yàlla waaye du ceew koo xam ne topp na digle te bàyyi tere yi loolu ci yàlla waaye du yow kon kattan ak pexe moom kooku moom yàlla rek rek rek rek rek fa tabaarakallah moo ko am loolu itam day junj hadis xadis boo xam ne moom it bokkoon na ci yonente bi salaay salaam sahaaba bu siiw boobu ngeen di dégg abu musa al ashari yu waxoon na ko na ko laa xolo wala quwwata kansun min kunuusil jannati maanaam ak koom la ak trésor la gu bokk ci ndambi aljana yi maanaam ak ndamb la gu bokk ci ndambi aljana yi moom yonent bi itam wax na ne maanaam am koom la mu nekk ci roon xaras am koom la moo xam moo nekk ci roon xaras nga xam ne sax moom it dafa dafa siiw lool di ko di ko yomb wax dox di ko wax nii rek dafa baax lépp loo xam ne nit dana ko créer di lu ko pexal maanaam soo koy wax rek maanaam da mucc yonent bi nee na maam fu ne soo ko waxee rek wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim maanaam amul benn njaqare booy am lu dul soo ko waxee njàqare yooyu yëpp dàq na ko noonu ko yonent bi amul benn njàqare booy am lu soo ko waxee rek njàqare yooyu yëpp dàq na ko moo tax lu muy tekk rek mooy wala hawla déetu pexe wala quwata ditu kattan ila billahi dara muy nekk ci yàlla alali yàlla mi nga xam ne mooy aji kawe ji alasimate aji màgg ji moom it salaasan ñett yoon nga koy jàng su ko defee muy indiwaat beneen mu ne bismillahi lasi laa yadru maha ismihi sayun fi lardi wala fi samaay la muy tekki mooy bismillahi ci turu yàlla lay tàmbalee allasi turu yàlla mi nga xam ne laa yadru du lore maha ismihi ànd ko turam wa sayun dara fil ardi moo xam lu nekk ci suuf la wala fi samaay du caagin lu nekk ci kaw asamaan yi waxu moom yàlla asamiho mooy aji dégg ñaan ji ala alimu mooy ki xamaakoon lépp tapeeg lépp lii itam moom it xadis la boo xam ne yonent bi salaay salaam daan na boole ñaar yi di ko digal saxaaba yi lu bëri ñi koy jëfandikoo muy ahonsu bi kalimaati laay taamaati min sirri maa xalaqa waaye nag ak bismillahi la ci laay duru maha ismi sayun fil ardi wala fi samaay moom it képp koo xam ne wax na ko ci suba gi ba ngoon gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na dara lu lay mën a lor du am waaye soo ko waxee ci ngoon gi naka noonu ba suba gi dara loo xam ne dañ la mën a lor moom it maanaam fa tabarakallahu amul naka noonu lépp looy def rek di ko wax waaw moom dafa baax mooy bismillahi la si laay durma ismi sayun fi laati wala fi samaay wasman alim la muy tekki rek mooy maa ngi tàmbali ci tur yàlla mi nga xam ne képp lépp looy tàmbali tàmbali ci turam moo xam lu nekk ci asamaan la wala suuf lépp su doon lor yow moom danga ci mujj xam nga loolu kon ngëneel li kenn mënu ko wax maanaam soo tàmbalee ci tur yàlla lépp lu xas nekk ci kaw suuf di lore wala mu nekk ci kaw asamaan di lore yow moom bu ñëpp doon ñàkk mu ci yow danga mu ci yow mi wax bisimilah kon loolu nga ne li kenn xamul du mu toll tabaarkalla te loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ne digaloon na ko mu di ko wax jamono ju ci jamono ju ne mu di ko wax muy bismillahi lasi laa yadru maa ismi sayun fil fil ardi wala fi samaayi wa huwa samiul alim su ko defee kon ñaan yaa ngi doon ñaan yu am solo la léegi nag moom it salaasan ñett yoon nga koy wax léegi nag mu ne rabbi ansil nii munsalan mubarakan wa anta xayrul munsilina moom it booy jàng xasida gi ñett yoon nga koy wax te mooy la muy tekki mooy rabbi yow sama borom ansil nii yàlla nag ma wàcc munsalan ci wàcc waaye mubarakan ba de buñ barkeel ndax wa anta yow xayril munsilina boole ñuy wàccee yow yaay ki ci gën yow yàlla moom it salaasan ñett yoon nga koy jàng soo gi laaya la moom ci alquran boo demee ci surtu moomi noonu ko ci fekk mooy noo bi muy woo nitam maanaam woote bu métti boobu lu ne daj na ko ci ba yàlla wax yu ko digal ko na ko yettil gaal ba muy yetti gaal gi nag fu ko nitam ñu gis rek di ko ree mu ne ñi nag may waaye bis bu gaal gi paree da ngeen xam ne maa leen di ba ba nga xam ne suñu borom digal na ko nag mboolem quatre-vingts nit ñi la gëm na leen sóob ci gaal gi ak xeeti njanaaw yi njanaaw gu ci ne góor ak jigéen mi ngi ci biir gaal gi mboolem quatre-vingts ñi la gëm na leen sóob ci gaal gi ak xeeti njanaaw yi njanaaw gu ci ne góor jigéen mi ngi ci biir gaal gi waaye nag mboolem ñi nga xam ne ay yéeféer lañ ñëpp keroog dañoo lab tukkante la adduna boobu nga xam ne gannaaw bu adduna tukkee dëkk bi njëkk a taxaw gannaaw lagug yonente yàlla noo nitam ñu bon ña maanaam mooy sanxaa u yamanta noon noo mooy ko taxawal léegi nag gaal gi fam teere ci diyaaru ba bakrin ca jóodiya ca araax foofu lay foofu nag moom lay wax nga xam ne yàlla dana ko fa qulil alhamdulillahi la ci na janaa minal xawmi saalimiina soo demee ba teer nga sant yàlla mi la musal ci bokkaalikat yi ci tooñkat waaye na wax ne yow suñu borom yàlla nag ma wàccee wàccuwaay boo xam ne bu ñu la ndax yow képp kuy wàcceel képp kuy ganale képp kuy ganale ab jaamam yow yaay ki ci gën yow borom bi tabaaraka wa taala kon su ko defee moom it sooy jàng xasida gi ñett koy wax te mooy rabbi ansilni munsalan mubarakan wa anta xayrul munsilin allahuma ya waxidu ya ahadu axuusu bika min sari saakini albaladi wa min walidin wa ma walada kon sëñ bi mi ngi ñaan yàlla lam doon wax naan a'uuzu bi kalimaatillaahi taamaati maa ngi muslu yow yàlla ci say baat yi nga xam ne way mat lañ nga musal ma ci ci ay lépp loo xam ne bind nga ko léegi nag ñaan googu lay door commencé ko mu ne allahuma yow sunu borom ya waaxidu yow mi nga xam ne kenn kenn nga mooy ku wéet yaa waaxidu yow mi nga xam ne ku wéet nga yaa ahadu woonaal yow mi nga xam ne kenn képp nga ahad nag mu mubaalaxa la bokkut ak waahid waahid mooy ku wét waaye ahad nag moom siixatul mu balaxal koy kooku mooy ki gën a wét mu ne ko awonsu maa ngi muslu bi ko ci sa kattan min zari saakini ci ayu woy dëkkee ñi albaladi ci dëkk bii wa maa ngi muslu ba tey min walidin ci ayu képp kuy jur wama wala da ak koo xam ne jur nañ ko moom it salaasan ñett yoon nga koy jàng sooy jàng xasidi gi mun yow sunu borom yow mi nga xam ne yaay waahid yaay ku mi nga xam ne kenn képp nga ba noppita te soxlawoo ku la wéttali maa ngi muslu ci sa kattan maanaam képp koo xam ne dafa dëkke ci dëkk bii di Touba aw xayam maa ngi lay ñaan nga musal ma ci <laughs> kon ku dëkk Touba war naa fexe ba waroo karee benn tu benn aw xay wala luy jur na wala luy waral ak tiitaange ak ragal ci biir tuuba ay waay waay ku dëkk biir Touba booy xool sëriñ bi loolu la njëkk ñaan yàlla lu ko njëkk yitteel bi mu njëkk woo yàlla ci turam wii di waaxidu ak ahad jox taw tawhid wéetal ko dana ko maa ngi muslu ci sa kattan ci xayu ñi nga xam ne dañuy dëkkee dëkk bi kon da nga ci déggee ndekke ñi dëkk Touba am nañ am nañ ay am nañ ay tooke waaye sëñ Touba nee na maa ngi la ñaan musal ma ca waaye dëkk bi moom sëñ Touba na yàlla aar na ko ba kenn mën koo yàq su ko defee nag mën nga faa yàqoo ña fa dëkk itam mën nañoo amee tooke waaye tooke gi ñoom lay gaañ nag fexe ba bul indi fitna benn fitna luy jur fitna wala luñ naan xew na Touba loo xam ne sariya bëggul ko ñu ne ci taale bii la bay ko loolu ak mat a bàyyi xel loolu fitna gënul ko rëy ñi ne am na la xew Touba tey te dëppuwut ak sariya ñi ku ko def ñi ne diwoo ko def loolu gàcc gu ko gën a bon man de loolu tabarka la mat naa bàyyi xel de mu ne ahonsu maa ngi muslu nag bikk ci sa kàttan min sarri ci ayu saaki nii ñi nga xam ne way dëkk yi lañ albaladi dëkk bi albalat bu ko waxee rek mooy dëkk bi di Touba waaye jublu ci Sénégal yëpp dëkk bi di Touba rek maanaam xaas la ca waaye wa maa ngi muslu ba tey min waalidin ci ayu koo xam ne day jur ak foo mën a nekk moo xam da ngaa dëkk feneen ñëw Touba wala nga dëkk Touba ñëpp ci yem nag ma ci musal umaa wala da ak ku ñu jur yëpp ci nag ma ci musal yow yàlla léegi nag fu ne yi nga xam ne moom la ñegee Touba ba nga xam ne suñu borom dana ko fa daq du fa am moom lay wax benn par benn mu ne xaqatul asada wal aswada wal xayata wal xaqraba wa saariqa wa taariqa wal xaqida wa naafisa wal xaa'ina wa saahira wal insa wal jaana wa jamii al muslimina bi alfi la hawla wala quwwata illa billahi alil asim sëñ Tuubaa nee na xaqattu yow yàlla takk naa takk muy lugg lugg mooy takk gaynde gaynde mooy cheefu àll bi dafa tudd gaynde waaye soo waxee gaynde bukki ak yamel ni moom ñëpp nga ca xam nga tuddul bukki waaye su waxee gaynde xam ne moom rab yëpp yi nga xam ne dañuy gaañe di lore di fàdd ci àll bi moom gaynde mooy seen moo tax mu ne gaynde rek waaye fekk yëpp la ci nam mboolem rab wu niroog gaynde wala wu soxoree gaynde rek dugg nga ci biir sëñ Tuubaa noonu lugg naa ko ba du ñëw ci biir dëkk bi di takk naa al asada gaynde wala aswada ak lépp lu yukkat aswad dañ koy tekki lu ñuul waaye mooy lu yukkat rek lépp loo xam ne day lore nga mën cee déggee lu mën a doon rek ak lu ñuul lu mën a doon rek maanaam maa ngi muslu ci yow yàlla nga musal ma ci maanaam daal takk naa ko lugg naa ko ba nga xam ne yàlla na nga ma ci musal bu mu ñëw ci dëkk bi di Touba. moo tax mu ne takk naa al as gaynde wala aswada ak lépp luy yukkat te ñuul lépp loo xam ne day dox ci suuf te rek yow yàlla maanaam takk naa loolu mooy lugg naa loolu ba nga xam ne loolu du mën a ñëw tubaa bay fett kenn di gaañ di gaañ kenn. takk naa ba tey wala xayata ak jaan xam ngeen ko wala xaqara ba ak jiit xam ngeen ko lu mën a fette la wa saariqa ak aji sàcc koo xam ne day jël loo xam ne moomut ko kooku mooy sàcc neen loolu yëpp lugg naa ko takk naa ko fa tabaarakallaahu wa taariqa ak koo xam ne day jóg guddi mooy koo xam ne bu di ñiiti gi xasee jot rek nga xam ne lëndëm gi commencé nay dugg rek commencé na di préparer ngir di waaj soo déggee taariqa ñu koy ñu koy tuddee loolu mooy sàcc su ngeen di xool euh, timis lay commencé waaj ay bagaasam guddi gi moom ci lay départ di yàq bu nit ñëpp tëddee ci lay départ di yàq waaye nag avant timis moom fekk na wàcc na jagal na ak ay matuwaayam yëpp moo tax sàcc ak bëri matuwaay loolu moo tax ñu tuddee ko baatab maariqi koo xam ne day jog ngoon ngir di wàcc jëm guddi am la muy def léeg-léeg muy fëgg ay nit léegi léeg muy sacc ay fas léeg-léeg muy sàcc ay oto ay nag loolu bari na si réew mi kooku mooy taarixa nee na maa ngi la ñaan nga musal ma ci nee na loolu naa ko mooy takk naa guddi tera ñaan waaye nag wala xaaqida ak aji pas ji mooy koo xam ne day pas di njabar wan naafisa ak koo xam ne day tëfli ak kii tëfli nen loolu yëpp lugg naa ko waaye nag wala xaa ina ak koo xam ne dafa amee gët muy tooke koo xam ne lu mu xool mu yàqu wa saaxira ak koo xam ne aji njabar la wa linsa ak nit wal jaana ak jinne loolu yëpp takk naa ko muy lugg naa ko xanaa mu wëlis ñu ñun sëñ Tuubaa waan jamii al muslimina waaye nag mu wëlis mboolem ñi nga xam ne ay jullit lañ waaye nag li ma ko takkee mooy li ma ko luggee mooy bi alfi alfi ci junne junne laa hawla wala quwata ila billahi alil asim nee na ay junne junne laa hawla wala quwata illa billahi alil asim maanaam ci laa luggee loolu ba nga xam ne lii yëpp du fi ñëw Tuubaa mooy al asada ak aswada ak xayata ak xaqaraba ak saariqa ak taariqa ak xaqida ak naafita al aina ak saahira ak linsa ak jaana lépp nee na sëñ Tuubaa neen takk naa ko ba du ñëw Tuubaa mu wullis ma man jëmi sëñ bi waaye ak wëlis mboolem jullit ñi sax laa fa ko bar ci sëñ kii moo mën a ñaan alxaqida ak naafisa mooy koo xam ne day njabar xam nga njabar soo koy def da ngay fas ay pas-pas ba noppi di ca tëfli moom nga digg alquran wa min sharri nafasaat fi noqoon yonent bi lañ ko njëkk a def yonent bi njabar nañ ko jàpp ko mu yonent bi Saydu ibnu Saabit bëkk néegam loon waaye ko ñuy wax ne Labib ibnu Axsam benn yahud bu bonoon la dafa bëggoon a njabar yonent bi salaay sam ñëw ci Saydu nag ba fexe xam nga Saydu daraan yore jarotu yonent bi te léeg-léeg karoog yonent bi da ciy taq mu fexe nag ba lijjantiloo ko lenn ci karaw yonent bi ba sëy di jox ko mu nataal jëmm yonent bi salaay salaam ba mel ni yonent bi la mu dal di fas njabar gi tëfli ca def ci lam ci def dem denc ko ci ab teen ci def dem denc ko ci ab teen xam nga teen nu mu xóotee ak ndox ma fay nekk léegi dafa dugg ci biir teen bi xeer wa nekk ci biir teen ba mu jël njabar ga teg ko ca waaye yonent bi salaay salaam ci la ko njabar gi jàpp kon yonent bi njabar nañ ko ba noppi jàpp ko waaye ana nan la def ba njabar gi dindee ko mooy yàllaa yebal ñaari malaaka jibril ñenn ñu ne mikaayil la ñenn ñu ne israfil ak ku mëntu ko am daal ñaari malaaka la menn malaaka bi ñëw teg ci toog ci legg yonent bi meneen bi toog ci beneen legg ba menn malaaka mi wax na waaw kii lu ko jot meneen malaaka bi ne kii de dañ koo njabar mu ne ku ko jabar mu ne labib ibnu ahsam ana njabar ga mu ngi ca teena diw sàngam teena diw sàngam yonent bi ci la xam na nag ka ko njabar ak fan la njabar ga nekk mu woo ali ibnu abi talib mu dem ca teen ba génn ko ali nee sax maanaam fekk ba njabar ga teen ba ndox ma dafa mujj xonq cur ak deret ngir lan jawar ga la ko ali génn nag indi ko ci la yàlla wàcce sóoratu euh, fallaxi ak sóoratu naasi nga xam ne fukki aay la ak benn booy xool sóoratul fallaxi juróomi laay la sóoratu naasi juróom benn laay la léegi nag bi jibril wàccee ñaari saar yooyu aay bu yonente bi jàng rek am pas-pas bu tekkee ko ba ñaari saar yëpp jeex yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mos mel ni kenn mosu ko njabar kon yonente bi njabar nañ ko jàpp ko takk naa ko mooy loolu du ko mën a lor moom ci dëkk bii di Touba mooy koo xam ne day njabar di fas di tëfli alxaqida mooy kuy pas pas pas ya wanaafisa mooy koo xam ne day pas ba noppi di tëfli am la muy ñaan su paree dinc ko alaayina nag mooy bët bët bu ay loolu Sëñ Tuubaa wax na ko ci Jawharul Nafiis nee na maanaam koo xam ne sax bëtam dafa ay am na ñoo xam ne luñ xool mu yàqu am xam ne tey am na koo xam ne lu mu am mu yàqu parce que dafa am kooku bëtu ku ko xool rek moo tax lu am mu yàqu moo tax lislaam sax dafa bëgg koo xam ne lu xool mu yàqu dañ koy tëj ci kër maanaam dañ naan ko yow doo génn kooku moom day am ngànt maanaam du mos a génn dañ koy tëj rek ndax lum xool mu yàqu kon nag bu génnee lu mu xool mu yàqu mën naa xool ba yàq lépp kon nag dañ koy tëj ci këram rek kooku mooy al na moom lu am la ndax arab yi sax booy xool liñ gënoon a ragal mooy bët moo tax alquran wa in yakkaatu la sin kafaroo la yasliqoonaka bi absaarim lama si moo sikra yonent bi su génnaan arab dañuy bokk seen bëdi di ko xool famaali la sina kafaroo xibalaka muqtana anil yamini wa anil shimali du jeex moo tax suñ ti nee ne nag lii yëpp lugg naa ko ak kii njabar ak nit ak jinne lépp lugg naa ko mooy takk naa ko mu wëlis ñu waaye wëlis mboolem junne wëlis mboolem jullit ñëpp waaye nag ci junne junne laa ol wala xot